mbooloo mi asalaamualeykum waa Wakaam asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa diaspora yépp yéen ñëpp maa ngi leen nuyu seen tur ak seen sant di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen mag ndaw góor ak jigéen yéen ñëpp maa leen nuyu fàttewuma kenn yéen ñëpp maa leen jox seen wàccuwaay di rafetlu jotaay bi di remercier tout la presse de votre présence maa leen di gërëm di leen sant si di ñëw di leen wax rek ne ndaje bi tey li ko sabab moo di ko dafa am ay problème yu am surtout dans le foncier fan yi yëpp à Wakam mu am ay opposition entre une frange de la population maanaam yenn jaraaf yi yenn partie de la collectivité yoo xam ne dañu am opposition ak euh, l'union sportive de Wakam déggoon nga ko fan yi passé ba ñenn ñi sax yóbbu euh, collectivité boobu yóbbu union sportive de Wakam au niveau du tribunal ba tribunal tranché verdict bi a été favorable à l'union sportive de Wakam wax leen ñu continuer seen travaux parce que l'union sportive de Wakam dañ bëgg a def benn siège def benn complexe sportif benn complexe sportif avec un complexe commercial bu nekk à côté pour am des ressources additionnelles un projet boo xam ne mairie bi daf ko supporter parce que xam nañ ne c'est un projet structurant waa Wakam yëpp dañ ci gis seen bopp parce que ku ne union sportive de Wakam wax Wakam loolu moo tax mairie bi bu mu gisee projet bi xam ne lii baax na pour askan wi mairie bi soutenir leen ci affaire boobu yàlla def aussi tribunal jox dëgg US Ouakam ne leen continuer seen liggéey le ministre de l'urbanisme jox une autorisation spéciale de construire jox ko union sportive de Ouakam ba nga xam ne toutes les conditions sont réunies pour que union sportive de Ouakam def ce projet la nu mu gën a rafete ñu foog ne affaire bi jeex na fan yi passé ma jot benn notification par voie d'huissier comme quoi une partie encore de la collectivité réunir nañ ne dañuy nangu permis d'occuper bi nga xam ne joxoon nañ ko US Ouakam léegi ne dañ koy nanguwaat jox ma ko par voie ni ñu ma ko joxee noonu aussi ñu jox la même notification à l'union sportive de Wakam pour wax leen ne nangu nañ terrain bi ñu leen joxoon le permis d'occuper bi nga xam ne moom lañ joxe fii yëpp ci biir 5007 bi mu nekk lu doy waa parce que bu ñu bàyyee loolu mu jàll man en tant que maire nga xam ne man je suis là pour tout le monde toute la population collectivité o union sportive de Ouakam o population bi je pense que tey euh, waruñu frange de population boobu jékki-jékki rek commencé naan day nangu bi permis de de d'occuper ak yooyu ça veut dire que les gens ne sont plus en sécurité bu suba mën nañ ñëw kenn euh, neexu neexuwul ak ñoom automatiquement ñu ne nangu nañ sa autorisation sa permis loolu nag la attirer l'attention des autorités et l'attention des Wakamois si problème boobu ñu jóge si loolu donc ñu euh, am yeneen problème foncier maanaam euh, sur le littoral le littoral est très agressé en ce moment donc ya des gens yoo xam ne day ñëw maa ngi dégg ay yenn histoire sur le littoral te actuellement loolu c'est réglementé ya a les lois et les règlements ñun en tant que maire dañ def tout pour faire respecter ces lois et ces règles d'utilisation du domaine public maritime euh, balaa loolu aussi fat na maa ngi masawu temps yi passé yëpp dafa amoon ay événement ay événement douloureux et événement violent yoo xam ne Wakam n'a pas été en reste am na ay parties surtout côté euh, Shell bi fële yàq nañ fa ay matériel yàq ay commerçant seeni bagages euh, arrêté ay ay nit donc yooyu yëpp maa ngi si masawu nit ñi di masawu le les commerçants yi nga xam ne dañ si jot ñàkk seen seen alal yooyu yëpp maa ngi koy masawu di masawu Sénégal sur tout ça alors sur ce domaine foncier aussi dañuy fàtte mooy le le le la collectivité ak l'union sportive de Ouakam damay profiter de cette occasion pour wax ne actuellement l'heure est au dialogue il faut pas que ñu continuer di xeer ñu yóbbu tribunal di ko ak génn man je tends la main en tant que maire à toute la population ouakamoise ni mu amee dialogue national ñun ñu am un dialogue local loolu laay invité nit ñi pour ñu ñëw dans quelques jours dinaa yónnee des invitations à toutes les franges de la population pour que ñu ñëw ñu toog en responsable ñu waxtaan naka la ñu mën dindee Wakam ci euh, impasse bi ñu nekk surtout sur le plan foncier parce que nit ñi foog ñu protéger leen ñi nekk ci 5007 bi yëpp am seeni titre foncier individuel léegi pour loolu il faut ñu waxtaan il faut ñu nekk benn donc loolu lay invité nit ñi pour ñu ñëw dans quelques jours waxtaan si ak ñi ñu si war a waxtaanal avec la mairie ñu jàpp si pour ñu ñëw euh, bokk ànd pour liggéey Wakam c'est impératif euh, y a beaucoup de problèmes yu may soumettre sur le plan foncier y a des gens yoo xam ne am nañ seeni boo ñu mel ni côté cité côté Montanari côté euh, Bandaouzou les cimetières c'est des gens yoo xam ne ñu ngi fii am nañ seen i boo mais mënuñu am autorisation de construire parce que euh, y des problèmes yoo xam ne euh, c'est c'est c'est c'est lié aux équipements yoo xam ne gisaguñu ko moo tax ba léegi on est en train de travailler là-dessus on a même écrit au président de la République pour mu jàppale ñu si et c'est en cours am nañ si yaakaar bu baax a baax a baax Bientôt, Inch'Allah, ce problème la sera réglé pour le bien de toute la population. di wax rek ne aussi actuellement Wakaam li muy yaatu yaatu y a pas beaucoup d'espace pour les jeunes que jeunes yooyu ñoo ñu fi teg jeunes yooyu ñoo étouffé il faut de l'espace on n'a pas assez de terrain loolu moo tax les assiettes foncières yi des yoo xam ne ñu ngi koy lijjanti avec l'État ñu def tout pour que ci jàmm ak salaam au lieu d'aller en ordre dispersé ñu réunion xool avec ces assises locales ñu xool naka lañ mën a def pour Wakaam am ci ndam pour Wakaam aussi euh, euh retrouver euh, la cohésion retrouver ñëpp ku nekk gis sa bopp ci affaire boobu euh, loolu moo tax fan yi passé dégg ngeen un honorable député pour na pas le citer mooy Serigne Bara Dolly mu euh, fustiger le maire de Wakam ne joxuñu ko son autorisation de construire moom wax lion yi ñëpp dégg nañ ko mu dem assemblée nationale devant le ministre de la république wax ne euh, joxuñu ko autorisation de construire parce que maire yu yeewu askan wi la et que euh, gisuma sam bopp si seddoo suuf si bon man dama ragal rek dafa juum honorable député dafa juum tout simplement parce que xamul xamuma quoi moo tax parce que man su ku ma xam xam ne si affaire Wakaam lay dox te boo gisee joxuñu ko autorisation de construire man ñëwuma pour régler des problème individuels moom autorisation de construire damay combattre pour ñëpp pour la collectivité parce que à deux pas beneen tali moo dox seen diggante ak cité avion Touba Wakaam Batrin ñoom ñëpp boo xoolee c'est plus de cinquante cinquante cinq mille habitants ñoom ñëpp ñu ngi xaar di xaar am ay espace pour les jeunes amuñu marché amuñu euh, euh, centre de de sport amuñu dara donc zéro équipement moo tax boobu ba léegi man j'ai écrit au ministre au directeur de l'urbanisme pour réclamer si éogène boobu mooy l'école nationale l'école euh, des officiers de la gendarmerie nationale j'ai réclamé des équipements comme la loi me le permet d'ailleurs parce que du loo xam ne dama dama koy ñaan la loi dit que dans tout morcellement dans tout lotissement dañu war a am quinze pour cent yu ñu réservé à yi voirie et 15 pour cent aux équipements collectifs loolu loi moo ko wax moom en tant que législateur nekk assemblée nationale war na xam loolu xëy na donc moo tax bi moo toogee dégguma dara j'ai écrit pour ñu jox ma le plan de lotissement kenn tontuwuma ba tey aw ma plan de lotissement amuñu équipement amuñu dara j'ai écrit au au au directeur de l'urbanisme pour wax que ne que on réclame conformément au au code de l'urbanisme on réclame des équipements équipements yi mooy lan école primaire cité avion li muy rëy rëy ak Touba Ouakam amuñu école primaire même VDN Sacré-Cœur amuñu école primaire donc ma ne au moins booy def un un équipement comme ça nga def un lotissement war nga am au moins des équipements comme école primaire un poste de gendarmerie avancé parce que poste bii mu ngi commencé touti un terrain de sport parce que xale yi amuñu fu ñu fooyee ñu ñu prévoir benn sport même ñoom seen doom ñiy def euh, euh, ñiy laaj autorisation de construire seen doom fan la dem fooyee ji amuñu fu ñu fooyee amuñu fu ñu footballé amuñu fu ñu basketé alors on ma réclame aussi un annexe pour les services d'état civil xam ne du ñëw ba chaque fois si mairie bi bu ñu am benn annexe mooy ñëpp ya y a aussi euh, euh, une maison de la femme te ñoom bu ñu paree côté yooyu ma leen di wax yëpp amul assainissement ñun on est en train de avec des des des partenaires étrangers pour ñu financer ñu pour def assainissement parce que assainissement ma fàttali ne c'est pas une compétence transférée c'est l'État qui doit faire l'assainissement mais malheureusement ba léegi amuñu ko donc on est obligé de faire appel à des gens yoo xam ne extérieurs la coopération internationale te avancé nañ si bu baax a baax a baax demain ils vont demander une assiette foncière pour def benn station de pompage léegi foofu foofu lañ yaakaar si suñu plan yëpp ñu ngi yaakaar foofu am fa benn 500 mètres carrés boo xam ne mën nañ fa def une station de pompage pour les eaux usées ñoom seen i seen i ndox yi fan lay dem après on est obligé d' avoir une station là-bas te yooyu mooy équipement yi nga xam ne c' est le minimum boo xam ne moom la ñuy laaj tax on peut euh, tey nii di ay autorisation de construire ci loo xam ne amuñu benn visibilité sur ces ces lotissement amuñu benn visibilité joxe nañ lépp amul benn équipement loolu mënuñu ko nangu te du ñu jamais signer benn autorisation de construire pour qui que ce soit fût-il un honorable député pour qui que ce soit là wax tant que réglé wuñu ce problème la loolu moo tax honorable député maa ngi lay ñaan réviser say say say say kaddu e xam ne noonu la demee on demande simplement des équipements mais laajuma dara comme ni mu ko waxee ne le maire gisul boppam si suuf si dem di ko wax à l'Assemblée nationale c'est pas parce que gisuma sama bopp ci suuf si man ñëwuma fi pour sama bopp moi je suis là pour tout le monde je suis là pour tout Wakam je suis là pour tout Wakam amul ay xaj a seet amul ay xaj ak seet je serai intransigeant là-dessus te bugguma aussi lii dal euh, suñu mbokki ngor yi nga xam ne suñuy suñuy parents lañ ñu dem ba loo xam ne c'est tellement évident koo mu ne lii de c'est normal war nañ am école war nañ am lii ñu dem ba siy xeex mën na ñàkk il faut ñu waxtaan et puis il faut savoir raison garder aussi ñoom tamit ñu bañ jël lépp ñun ñu toog wakaam toog waa wakaam amuñu si dara doo dégg benn waa wakaam ñu ne jox nañ ñu benn terrain foofu te ñu ngi may tuumaal sax si loolu naan way xam naa parce que loolu lañ tàmm jox nañ affaire bi si suufa ah, jox nañ affaire bi si gannaaw non yooyu encore une fois je dis à tout le monde et Ouakam moi joxuñu ma benn espèce de terrain pour mu leer donc leeral yooyu lañ bëggoon apporter joxuñu ma terrain parce que ñu ngi koy rumandaat fu nekk euh, joxuñu ñu benn équipement non plus ñu ngi si liggéey sotteegul parce que man j'ai j'ai réclamé ces équipements là mais duñ toog nag ma signé ay autorisation de construire joxuñ ñu dara et puis bu boobaa su population moom mooy jóg réclamer ces ces ces ces autori ces ces terrains ces pour des équipements école bi ak ah, yi ma wax nii yëpp c'est obligatoire c'est pas doo xam ne dañ koy dañ koy commander dañ koy ñaan lii c'est la loi qui dit que da nga am 15 pour cent mooy 12 000 mètres parce que le président de la République a déclassifié quand même 8 virgule 5 hectares. maanaam plus de 8 hectares 8 hectares c'est 80 000 mètres carrés 80 000 mètres carrés boo si génnee les les les les voiries pour euh, euh pour euh, 15 pour cent boo génnee équipement 15 pour cent ça fait 12 000 mètres carrés mais 12 000 mètres carrés loolu mooy minimum bi nga xam ne moom lañu ñu a jox loolu la loi bi wax bu la neexee nag jox ñu un peu plus mais 12 euh, 000 mètres carrés yi moom c'est vraiment loolu la loi bi wax. ngir yàlla nañ ñu ko jox jàmm ñooy léegi bu ñu joxul leneen nag c'est pas grave mais au moins ñu jox ñu loolu te lion yi ah ñi muy wax noonu lion yi ah yenn yenn officiers yi mais c'est normal loolu bu ñu leen ko joxee bon c'est normal ñu dëkk ñu ñëw ñun wakaam dañ ne ay wakaam ay gànt rek lañ bu ñu ñëwee dañu nekk wakaam waaw ah ñu seey si suñ biir tant mieux kenn kenn añaanoo leen loolu mais quand même buñ jël yëpp ñun ñu toog loolu la ñuy wax ñun donc man fi mu nekk nii loolu laay défendre et encore fois j'invite et je tends la main à toutes les couches de la population yi nga xam ne euh, ils sont impliqués dans ces affaires foncières ñu ñëw dans quelques jours ñu waxtaan ci affaire boobu donc maa ngi leen di gërëm di leen sant euh, di leen masawu coono